laaj ndax sama yaram nag mm-hmm. moo tax xama ma su ma ñëwee biir géew moom wax dëgg yàlla moom man daan rek laay xalaat gaynde ngay doon daan waaw man du ma xalaat leneen lu dul ndam kase mm-hmm. waaw ndax ñun man xam naa baa lu si ndam quoi mm-hmm. waaw xam naa lu si ndam fu mooy yóbbu quoi ah man avant corona laa mujjee bëre yow gi nga bëre kon yow waaw avant corona bi la sax waaw mais xam <laughs> làmb léegi moom gaa yi moom yoon lañ ko def yoon. yoon lañ ko def de loolu moom. barki Serigne Saliou Mbacke ba yoon lañ ko def. <laughs> man tey jii nii nii nii. Mhm. maa si plateau bi kay boo ñëwoon avance ma ma génn léegi léegi. Mhm. ko suba incha allah ma takk sama mu bëre. nga nii. nii bu mhm. ma joxoon avance laa suba moo bëre. ah mais nag promoteur yaa ngi lay dégg de. waaw yow. gaa yi laay xaar. jamérique ñoom seen. gaa yi laay xaar ñoom ñëpp ba yu ñëw maa ngi woo ñëpp nag tij naa sama buntu. Mhm. waaw tijji naa sama bunt nag. mooy nuyu na ay Kalso Kalso. yàlla may ndam. ndeysaan Kalso Ndiaye ndax moom moo tax ma ñëw fii. waaw ndeysaan yàlla yàlla ndam. Mhm. waaw. Mhm. ndeysaan moom nee naa ko kooku mooy xaritu ñëpp guy gi. yow nag euh, da am combat wala. waaw am naa combat. kañ le 19. bi di ñëw le 19 novembre incha allah. di ci woowaa dëkk bi yëpp. Tivaouane Peulh moom la ñu am. di woo autorité Tivaouane Peulh yi pour ñu ñëw jàppale mbiru Tivaouane Peulh yi mbiru Tivaouane Peulh dañoo sonn. te ay jàmbaar lañ. saa demee dañuy bëri am ndam. te Tivaouane boo demee esaat. jël bu fay gën a rëy mbiru Tivaouane moo koy daan. te kenn jàppale wu leen. di woowaat autorité Tivaouane Peulh yi monsieur le maire. ak ñeneen ñëpp ku koo xam ne autorité Tivaouane Peulh nga rek ñu ngi lay woo nga jàppale doomu dëkk bi. confiance moom bu ñëw bëri ñu ngi koy félicité ci ndam lu rëy li mu am. parce que démb rek la am ndam. jël bu rëy ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ndeysaan xam naa nag yéen dégg naa yéen waa Tivaouane Peulh nag yaboo leen waa parcelle de. non Mbour Tivaouane Peulh champion lañ. ii yaboo leen kay waa parcelle parcelle nag. non waa parcelle dañuy xaar. ah non waa parcelle non Tivaouane Peulh ñooy xaar ah. waa Tivaouane Peulh ñooy xaar de 16 roi des arènes. non waa parcelle champion yooyu ba ñu ngi parcelle. instant bii dama ni. waaw roi bi ñoo ko téye si dama ni. Mm-hmm. lamb ji lañ bëgg indi Tivaouane Peulh. fii te si kàttanu yàlla lamb ji dem dem man damaa xamul yan champion ñoo nekk fii. Tivaouane Peulh dafa bëri champion maanaam tubaabu joor a ngi fi moom bëri na fi grand combat. yow yow tubaabu joor bëri grand combat booy bisaaw mu ngi fi. waaw bëri na fi nekk si la làmb kese ñëw Tivaouane Peulh de lépp luy lu bokk si làmb day da ngaa taal yow da ngaa teel a laaj kay seize bi. <laughs> seize baa ngi parcelle de. <laughs> waaw seize baa la xanaa boobu. Mhm. li si kanam rawul bët de. Mhm. lépp Tivaouane Peulh fii lay ñëwaat. Ah, am na ay booy sonn si laamu te dañu. am ay booy garaaw de. waaw mais baay guddi guddi passé la ah. mhm. <laughs> waaw instant mburu parcelle yi ndax ndaw yëpp instant loolu la ñuy wax. Mhm. parce que couronne baa ngi parcelle te couronne bi bu mu duggee parcelle ba léegi yaa ma gën a xam kenn saa moom mhm. dañ ko de. waaw ah, nañ ko indil ak waa ñun waa Tivaouane Peulh jox couronne pour ñu teg ko fi soxla nañ ko de. <laughs> est ce est ñoom dañ koy jaay sax ñoom. non xam naa dañ koy saam foofu. non saamuñu ko sax. lam <laughs> moom muy parcelle quoi waaw waxaat nag ñoom monsieur le maire pour ñu jàppale booy ñu taxaw booy. bu baax a baax mhm. ndax làmb nekkul caaxaan quoi. mais nag booy jeunes yi mbëri. Mhm. nañu fexe nañu fexe nag ut métier. Mhm. ndax làmb kese nekkul métier. voilà bëggoon naa sax kay. waaw làmb kese nekkul métier quoi. xam nga mais ñaan nag dafa metti ñaan. ñaan dafa metti ndeysaan barki Serigne Saliou. man moom wax dëgg yàlla man moom samay combat képp ku may jàppal ma soxla ma xaalis. mais man maa ngi xëy maa ngi gont. mais man. képp ku may jàppale képp ku may jàppale mm-hmm. mooy si làmb dama jàppale waa si côté billet mm-hmm. soxla ma leneen leneen leneen soxla ma ko ndeysaan comme foofu mu waxee rek mm-hmm. ñu autorité pël yi damay waxaat si ñoom tamit quoi ñun bu ñu demee si ñoom di leen sàkku ndimbal du pour ñun du pour suñu kër pour supporters yi pour jeune Tivaouane Peulh yi pour ñu yëg si oto yi dem. moo tax ñu dugg seen kër yi mais bu doon ñun mbër yi ñu ne mbëri kese kese. non billaay kon duñ dugg kër kenn. mais ñun doomu dëkk bi lañuy ñuy dimbali. mbër làmb dafa metti boo duggee ecole de lutte Tivaouane Peulh. jeunesse bi ñëppay seeraan làmb te bu jour baa kon kenn du am ticket. da ngay dugg fu nekk. Mhm. pour am ticket. mais day metti mais yéen seen déplacement nan lay demee ak euh, arène nationale. ku ci nekk xam ne arène nationale dafa sori. waaw xaw naa sori si oto yi koo jël trente mille quarante mille la lay wax. ndeysaan. imagine nga bëgg jël quatre oto wala cinq oto. eh da nga mën a jël yow ñaari oto yi kay. fii dix dix oto sax bu ñu fi taxee day fees. muy na xanaa kay ñun kay dina yëpp rek gaare noonu. non yàlla xam na li ma lay wax dix oto bu taxee Tivaouane day fees. <laughs> xanaa boobu waa kay gox yëpp ay def. instant bii nii may wax ak yow rek. Mhm. gaa ngi waajal lu garaaw. Mhm. le 19 bi ku ko fekkewul fekkewul dara. <laughs> noonu ngeen di wax rek lamb moom <laughs> yàlla baax na. comme fi mu waxee maa ñëwaat foofu quoi. Mhm. mooy mbër daa war a am métier. Mhm. parce que làmb dafa métti. champion yaa ngi fii dañoo gëj a bëri. am na ay champion champion laa lax ñu ngi toog te gëj nañoo bëri. bu ñu amul métier dañuy sonn. man fi may wax ak yow nii. Mhm. ferrailleur laa damay liggéey. te maa ngi sama permis tooguma rek di xaar làmb. di waxaat mbër yu ndaw yi ku ci nekk nag na nga góorgóorlu wuti métier. parce que làmb nee nañ métier leen mais du métier. métier boo xamante nii boo bëriwul doom xaalis te boo bëriwul sax doom xaalis dina waat de laamu dafa metti ku ci nekk gis ni muy demee sax kay mooy loolu te boo bëri ba pare da ñaan ndékki wala yow ay bor topp la ci loolu ku ko ku mhm. ci nekk rek doo ko xam te kuñ ko wax doo ko gëm mhm. non loolu moom man xam naa si dara quoi mhm. wax dëgg yàlla ndax man parce que sama combat mujj bi damaa laaj sama gars yi laaj leen ba mujj bi sax ku ma gis sax ba day daw ndeysaan ba semaine affaire yi metti trop trop trop sama yaay génn xaalis bu jox ma. man lu ma desoon ba sama compte lépp laa def te barki Serigne Saliou Mbacke bu ma yaakaar 100000 francs lañ ma fay. bëgg bëre moo tax. ndeysaan. te ma jaay naa 4 bloc. ndeysaan. kon nag ñun promoteur yi ba li liggéey quoi benn côté. Mhm. kon nag ba ñun mbëri ndaw yi nañ fexe taxawoo. Mhm. wóor na Serigne Saliou Mbacke. combat bi de. Mhm. semaine. 500000 laa leb. 500000 laa leb. ba ma bëree pare nag gars yi du yuuxu. Mm-hmm. man may xalaat boru 500000. sama dox yow noo koy fayee. nan laa koy fayee <laughs> mais nag xam nga bu doon métier bi. <laughs> waaw ndeysaan du baax. Mm-hmm. seex di jooy xam nga mm-hmm. ba si seex maa koy nuyuwaat bu baax. ndax man lépp lu ma soxla suba ngoon si wàll oto lépp. da siy taxaw sama commande yëpp moo ko taxawal. daam Sall maa koy bëggaat bu baax. ak Tidiane maa koy bëggaat bu baax. xam nga kalso moom yow nekk si jàmm rek yow kenn laal la. <laughs> waaw. jamono askan bi Alum Bamba sama téer borom fajaa yow yow jàmm si yow baaraay kaañ sama téer borom fajaa yow nekk si jàmm bu baax. ndeysaan macha allah mais mbër ba léegi rek nan ngay dundee supporters yi. dégg ma nan ngay dundee ak supporters yi. fan si quoi bi wax dëgg yàlla sa korog mhm. noonu ba nga ma envoyé affaire bi nii. Mhm. assuré bi noonu. Mhm. wax dëgg yàlla ba nga dugalee SRT ba nii nii ni ñu ma wax da nga am combat. Mhm, ndeysaan barki Serigne Saliou Mbaye ma ne noonu ama combat ñun ma fexeel jël combat. ndeysaan te man période bi laa man ku ma fayoon 10 000 francs ma bëre. di nga bëre. 10 mil francs ma bëre. di nga bëre ndax ñun. yaakaar naa man ma commencé émission bi ba léegi nii képp ku ma fi invité bu passé yow am nga combat. incha allah ko wax yow kon sama gars kon. continué nangeen ngeen bu baax. Mhm. gars yi dugg fi ñu war a dugg. man mhm. moom pare naa. waaw man moom jekk naa ndax it man man ñew naa parcelle xam naa ne wax xale bu bari mbooloo nga loolu moom ko man nii moo xam naa ko ndax man ñëw naa fa tamit gis naa say combat mais mi tamit nan ngay dundee ak ñoom ak lan moo waral loolu. waaw lu ko waral xama mbër moom da ngay yaru. doomu aadama sa laa wax doomu aadama da ngay yaru. xam nga mom moom boo ñëw de estar bu la wuyu see rek. da ngay sonn. ndeysaan. te ñun ñoriwuñ loolu. Mm-hmm. ñun ay taalibe lañ ay ndongo daar lañ. ñun ñun gëmuñ dara loolu Serigne Touba lañ gëm. ñun ñooy xëy daan léegi-léegi xëy suba dem liggéey. Mm-hmm. ñun ne ñun waruñu esaar. Mm-hmm. waaw ndax mais nag suba teer nag maa ngi nuyuwaat bu baax. xam nga fan si waaw fan si bu baax a baax a baax ndax man awma ay fans. bari nga ay fans jigéen de. mais man ay xarit la am ay xarit. ay xarit la <laughs> ay xarit la am ay xarit ah. xaw ma demee mais. waaw awa ci upp de. awa Serigne Baba borom ceeb yi neex yi. waaw maa la jox <laughs> maa la nuyuwaat baax. Mhm. Serigne seex Mbacke borom Maroc. Mhm. yow dafa loo neex borom ndekk yu baax yi. maam Kumba borom ndekk yu baax yi borom Maroc. <laughs> mbër ndax ma damaa bëgg ceeb. yëppal <laughs> nga kay moo bëgg ceeb ba léegi rek. Mhm. daan lay kii rek kay laa ñëwaat kay ci yaw dëgg la. nan nga dundee. ak supporters yi fans boo yeewee ba supporters yi ñëw si bunt kër rek beneen affaire la. si boo amee jom. wallaahi azim. mbër bu am jom boo yeewee. Mhm. ba gis supporter da ngay am jom. Mhm. da ngay gën a nekk si làmb ji. Mhm. xam nga woote ñu wuyu la dafa jafe. mais am ñoo xam ne dañuy woote kenn du ñëw. day fekk si ñëw si ñoom la quoi. boo dëkk si koñ da ngay wàcc sa bopp. koo gis. def ko sa bopp quoi. Mhm. def ko sa papa wala sa yaay wala sa mag. ndax it gis gis naa loolu kay ci yow ndax it yaakaar naa yow sa affiche bi. Mhm. bu mu génnee ñu pat ñu sax. Mhm. kay woon ma. ne ndax xam nga kii di profité di nuwaale yow sa rakk ji Xadija. Xadija sama rakk ji waaw Xadija kay maa ko nuyu. maa ko nuyu moom tamit xam naa. waaw. nit ko sonn kaay ci yaaw billaay dafa sonn dañoo sonn si man xam naa mm. moom ko nit ko sonn ci yaaw billaay su may bëre day xëm mm, continuel foofu <laughs> su may bëre <laughs> moo doon woote dañuy xëm si kaw stade continuel noonu continuel <laughs> waaw ak supporters yi rek waaw supporters yi mm-hmm, mm-hmm. day daw mm-hmm. te fajar la ñuy ñëw yee si mbër mi ñoom ñëpp ful la ñuy def yee si mbër bi si buntu kër gi la ñuy taxaw te naaj bi day tàng te mosoo gis mbër buy bëreel di baasal supporters si biti baasal supporters si biti mosuñu gis mbër bu mel noonu té dañuy ñëw taxaw ci naaj bi ba heure bi ngay dem estat stade dañuy taxaw ci naaj bi di la yuuxul yow nga mm. nek ci bir neegu ci mbukaay ndeysaan bir neegu ci tangul hmm ñom ñoy yëg metti bi mm. ba ba ngay dem estat ba ba ngay bëre ya xam da ngay daan ya xam da ngay daan té dañuy andat ak yow ñëw nekkat fi di la supporter ndeysaan sama fan sa club amuma seen fay mm-hmm. ni ni may wax ak yow ñu ngi tok di réunion ndeysaan fekké wumako ko dañ may jappalé suba ngoon mm-hmm. ma ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax a baax mm-hmm. seen fay dañuy sonn ci man sama staff ku ci melni ifra Jegaan. Mhm. Ousmane Peru. Mhm. Abdou Sall aw ma fayam mu ngi may jàppale bu baax a baax a baax. ndeysaan ñun ñii lañu am. Mhm. ñun ñii ñoo ñuy jàppale. ndeysaan bu ñu kenn jàppalul tamit ñooñu dañu leen di gis. saa yu ñu yeewee dañu leen di gis ñun ñooy toog ak ñoom. di waxtaan ak ñoom. dañuy jàppale bu baax a baax aw ma seen fay. ndeysaan noonu laay nuyoo tamit waa Medina maa leen nuyu bu baax adjoint au maire Mbaye Sarr maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu kay waa Bifa Té wala waa Bifa cosmétique maa leen di nuyu bu baax di nuyu Mbaytin Mbathine maa lay nuyu bu baax a baax nuyu ma yow sa ñaari jigéen yooyu bint ak euh, Ndeye Fatou waaw bi fa cosmétique maa lay nuyu bu baax a baax a baax nuyu tamit euh, yow soxna yow borom jaag maa lay bu baax nuyuwaale tamit sa xarit sa doom day soxna ngoom soxna Ngom maa lay nuyu bu baax a baax di nuyu tamit Assane seen nguñaan bu bees maa lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñoom Abdourahmane seen ñoom Bamba cosmétique ñoom ñëpp nuyu nuyu naa leen bu baax mbër foofu kay laa ñëwaat yow euh, noo gisee làmbu ji waaw làmb ji moom neex na trop. làmb ji neex na trop. nu mu ubbee wax dëgg neex a gum na waaw waaw neex na trop. Mhm. waaw ñaawu ndaw. Mhm. maa nga ñaanal borom bi may ko ndam bu sedd guy guy guy ndax ñaar mhm. sama waaye la mais nag gis nañ dëggante ndax fan yi damaa voyagé woon. di ko ñaanal ndam. ndax saa maa ngi fii nii mais xel baa ngi esaat. ndeysaan Karim nag temps moo ma dalal fii. temps maa ngi fii nii. côté kii bi. Tiwaan Bambilor waaw maa mi loor quoi. Mhm. moom fi andi fan yi ma nekk si entraînement yi. xam nga mhm. waa gaale boobu noonu maa ngi di nuyuwaat bu baax. Mhm. ñoom moo ak soxna si bu baax. ñoom mooy topp taw bu baax a baax a baax. wax dëgg yàlla instant yii maa ngi mel ni ba ku nekk parcelle. oh <laughs> mbër moom xam naa ne mais tamit lamb ji ama bu xam waxantee dëgg daaw lamb ji bari woon na ay problème trop yële am na sax ay combat yoo xam ne yeggul munoo xam si peut yow munoo xam ci mbëri la. noo xam daal mais ay bëri na daaw wax dëgg am na ay lam yoo xam ne wala lam yu waroon neex ay comme exemple si taag kii euh, Papa Sow. si Papa Sow. ko comme ça yow tamit ba yaa ngi koy xalaat. waaw lamb gi moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Mm-hmm. muy Papa Sow muy Siteu. ku mm-hmm. nekk bu seeyoon làmb ji am. ndax entraînement dafa métti. teel a yow entraînement ñëw ba jour bi. combat bi yàqu dafa métti trop trop trop. mais nag bari na supporters yi. gën a yaru. dëkkat yi. gën a yaru. Mm-hmm. waaw ndax ñaari nit baa ñooy bëri ndax bu jeexee jeex na ndax xama ñun nekk ñu ay noon mm-hmm. ñun bëri nekk ñu ay noon nekk ñu ay dof mm-hmm. waaw ba si guy gi bii nag xama xaw ma ko nag mais ku baax la ndax moom lu muy wax nii mu ngi yokkaat gaay. xel bu sel daal dëgg yàlla combat bi mu jëm nii yàlla na ko yàlla may ndam waaw mais man nag bëgg naa combat da nga am combat léegi inshallah <laughs> xam naa moom tànk moom xam naa non moom bu jibee bu ñibee bu toogee gaalam dinañ ko woon dinañ ko woon ah? dinañ ko woo jox ko combat <laughs> incha allah amul benn problème mais mbër hmm. foofu rek la waaw laa ñëwaat ak yow hmm. yow nee nga ma sax yow sa fan si club ñu ngi fi réunion nii hmm. mbaa est ce que yem yaa ngi wax ak ñoom man sama fan si club mos ma buddi seen sànni ñun xamuñu loolu waa tiyaan bol xamuñu loolu ñun ànd ak sa mbër si yar lañu xam ak si teggin ñun bu ñu entraîné wul dañuy escante force dañuy ñëw entraînement te force dañuy daj lu metti Mm-hmm. fii la ñuy xam ne ba xam da nga war a daan wala da nga war a daan ndeysaan ñun suñuy kursu mayu ñu dara vie njaay mm-hmm. ku ku ne xam na ko si biir tiyaan bal moom du may dara mm-hmm. suñuy supporter tamit comme noonu ay xale yaru lañ samay mag ñu ngi ci samay at ñu ngi ci wax dëgg yàlla amu amuñu seen fay daal ndeysaan waaw comme li ngay wax sànq si làmb ji comme daaw làmb papa sow si gis nañ ni mu demee mais njumte bu amul tamit doo mun doo duñ la mën a corriger boo juumul kenn du la corriger. Mm-hmm. xëy na si organisation bi demeewul loolu noonu. Mm-hmm. gars yi juumoon nañ ci ba léegi nii defaraat nañ organisation bi. léegi ku dugg arène nationale di nga xam ne organisation bi jaar na yoon. waaw sax na moom dugg naa fa. waaw ku dugg arène nationale di nga xam mm-hmm. yi fi ñu nekk. ak Siteu fi mu nekk bokkul. tëggkatu Siteu ñu ngi ca Papa Sow nekk. Papa Sow fi mu nekk. tëggkatam bi ñu ngi fële. te loolu jaarul yoon. bu dul woon loolu am na instant boobu kon di ko xamee woon noonu. li mo mënoon a am rek. Mhm. ñu mëna a rectifier affaire yi. Mhm. defrat organisation mu jaar yoon. Mhm. mais lamb ci mom neexna wax deug yalla neexna trop. est-ce tamit jotul tamit yeen ngeen di communiquer. carrément ak supporters yi. waaw lolu yoon la mbeur bu ci nekk kuy tak ngeem rek da nga wara wax ak supporter da nga wara wax ak ses supporter bu baaxa baax. waaw ngeen di weccoo xalaat di leen wax li am ci lamb ji. xeyna na ñoom kenn teewul règlement ci kay di di leen ko wax kenn waxu règlement lamb ji. ñun mbeuri lañ koy wax. léegi nag ñun mbëri boo amee réunion da nga ko war a wax say supporter mhm. wax leen lii ak lii ak lii ak lii lañ am mhm. xëy na ñoom boo leen ko waxee dinañ xam fu ñu yem bu ñu duggee sax mhm. waaw euh, ba léegi rek est-ce que tamit comme entraîneur yi ñu ngi waxtaan ak yéen comme comme règlement bi lamb ji lii lii lamb ji nangu lii la bañ waaw bu baax a baax suñ course ñu ngi wax ak ñun mbëri bu baax a baax lépp lu ñu tëral rek si si CNG. si règlement. Mm-hmm. bu ñun suñuy coach yi bu ñëwee dañu koy wax. Mm-hmm. loo gis rek mbër dem def ko. Mm-hmm. wax dëgg yàlla sa coach wax na la ko de. xanaa da ngaa topp sa bëgg-bëgg rek. waaw ak ak yoo xamante ni mooy tegtal yeeg yooyu noonu. mais loolu tamit si làmb la bokk. kenn mënu koo génne si làmb. une question Ama est-ce que tamit ndax ñu ngi ñu ngi waxtaan ak yéen kay ci. Euh, waaw mais ko si moom. wax yàlla avant mhm. làmb ñu ngi waxtaan ak mhm. ñun bu ñu amee mhm. combat ñu ngi ñun bu ñu amee combat ñu ngi waxtaan ak ñun mais pesaan nag ba yaram mooy tàng waaw ndax waaye ndax baay yu ñu lay sol la moo tax waaw <laughs> waaw nuyuwaat waaw xam nga tos Malick Malick Malick waaw Malick mu ngi si taxaw bu baax fayu ñu ko joxuñu ko dara xam nga Cheikh Ibra suñu koksu maa koy jaale bàyyi seen waa kër yàlla na ko yàlla yërëm te yéexi ñu ko nekkul bàyyi suñu koksu bu baax waaw père Birame suñu père la kon nag bépp doomu passage a leen ñu nekkaat si entraînement yi. Mhm. xam nga mooy nuyu jëf jël. borom mhm. Amérique Cartouche borom France. Mhm. man nag soxla ma dara ma lu mu bëgg baa ngeen ngeen gën a dooleel équipe bi. dëggal nag tukki ngeen mais mais waaye ñun booy ñoo fi nekk. fexe leen bàyyi di ñu woo téléphone di ñu ñaax. dañu amul dara bàyyi loolu làmb. muy jëf jël muy Cartouche. waaw loolu moom pour ñoom la. mais Sénégal moom gis nañ taxawaay bu baax a baax a baax. Mm-hmm. may biram nag waa ah, passé lu baax 1 ba 26 bépp doom passé ba am combat mm-hmm. yàlla ko yàlla may nam bu sedd guy guy mais nag namu naa combat trop trop trop sëñ <laughs> bëri waa Sénégal namu naa combat de mbaadu <laughs> non bu nekkul caaxaan non non kon nak man ma du ko caxane mm-hmm. mais nak kuma xamul do do fokk mbeur tax man trompeur la madu <laughs> waaw trompeur la mais lamb du caxan da nga entraîner wala non maa ngi entraîné mais xam moom PCA yi ñun tout temps lu ñu lu ñuy lu ñuy wax. Mm-hmm. ñun mbëri. Mm-hmm. ndax gars yi ñu wax noonu mbër dof la xam nga da ngay takk ay mooso. Mm-hmm. xam nga def affaire dof xam nga. te ñun nekk ñu ay dof ñun ay nit lañ. nit mais ah. nag heure entraînement heure entraînement la ndax xam foo koy xoolee. Roi des arènes Modou day sol ba rafet. xam nga xeeñ parfum bu neex xam nga loolu léegi dafa neex. ndax nit booy kontaan moom. xetu. pokotaan da la xeeñ xam nga loolu erreur la xam nga da nga wara mag sa doxu mag di ko ñaaxaan nag waaye suñu mbokk mbeuri bo ñu entraînement deneen sangu ba set du message la kay sa amna su lolu baax baax baax waaw aca continue loolu la ma li la wax mais kalso yalla yalla may ndam na kalso on ci plateau bi mhm. barke serigne salou mbacke eh. dafa sonu si man mom mo tax mo ñu ci plateau bi ni yalla eh, ko yalla may ndam ndax kalso gars yi façon wax ju ne fexe nañ ko wax pour ñu jaxas ñu mën ak moom. ndeysaan war na Serigne Saliou Mbacke. mu mhm. nekk ku baax ku yaru xama ndeysaan mhm. ndax pesaay boo baaxee sax dina teg dof mais nag ñu lay teg dof ñun ñooy dof. Mhm. waaw bàyyi kañ sama téer yow loo ñëwul baaxul. yow nekkal si jàmm. alu bamba sama xarit léegi léegi moom mooy woo. ndeysaan après vidéo xam nga dama laaj ndax. émission yi foos toll. sama téer ngi noonu. waa Gàmbi nag maa ngi nuyuwaat nag bu baax a baax. waa Gàmbi waa Gàmbi waaw. da nga nekkoon Gàmbi. non nekkuma Gàmbi nag mais am naa fa fan si club. ay link quoi waaw am naa fa ay link. xam nga man moom yéen bëri kay mooy loolu quoi. waaw mm. nuyu ku si mel ni. Mariama borom Gàmbi yaa. Mm. sama séeri sama yaay sama xarit sama mm-hmm. lépp. borom teraanga yi. te mm-hmm. yàlla teraanga yi mu ngi ñëw bu baax boo gisee kay man ma laaj la loolu. mooy tamit sponsor yu bëree bëree bëri que dañ doon naan kay violence bay tax kay ñu daw kay lambu jéeg. ñoom seen yooyu te tamit yaakaar naa képp ko wax làmb ne sponsor waa làmb pensaa di nga taxaw sa kër mm-hmm. ngay sotti ko ay bagages mm-hmm. mais da gis ñoo xam ne sax xamoo leen mm-hmm. pensaay yi nga gis ne da xool ay nit sax xam ne ñii dañuy ñëw pour yàqal la mais boo dem làmb mënoo segg ay nit non non kon nag gars yi ngir yàlla. Mhm. fexeel ñu Sénégal lay am ndax. Mhm. ndax baay sa waajur nga koy agressé. Mhm. dafa metti torop torop torop nga gis ko nii dafa metti sa raq may sóot ndax xamoo kooku noonu fa la jël alalam. kon nag man di ñaaxaat jeune Sénégal yi. dañu fexe am métier. waaw. jël yëfu jàmbur baaxul. ma samay supporter barki Serigne Saliou Mbacké du jël yëfu jàmbur. ndax ñii ñu ngi xëy ñii ñu ngi jàng. di xeeñ parfum gu neex. bu ñëwee nag mën yëngal leen. mu yëngal si suuf. mu riir. Mm-hmm. daal ah, ñibbi. ndeysaan loolaa xam. mbay mm-hmm. diw nag borom borom ndaw lu baax yi. li mm-hmm. ñu may ndawal nag. mbër moom lekk rek nga ko mbër damaa soow. maa leen baax a baax a baax. ndeysaan waaw fu mu ñëwee xel kafe naan Père yàlla yàlla dafa jàmm yàlla yàlla dafa jàmm Père Ibrahima. daf mel ni am na kay ñu may woo de sama téléphone nee na ma kay ñu doon bëgg kay dugg ci émission bi xoolaatal kay sa serveur bi kay boobu baax a baax léegi ku bëgg a dugg kay ci émission bi yow mën ngaa woote 78 468 01 36 78 468 01 36 foo kay ngeen di jaar numéro baa ngi nii kay nu affiché nii voilà mbër. waaw ba léegi rek. foofu kay laa ñëw ak yow ndax it. Mhm. ba naka ñi naan sponsor yi que dañoo daw lambu jeg ndax violence bi. waaw du war sponsor yëpp rek. Mhm. di leen wax ne làmb amul violence. Mhm. violence yi fi amoon daaw yëpp. boo xoolee du làmb. boo déggee nit dee na nit mosul dee estaat si mbër. boo amee bëriwul de. wala li ma koy dégg bëriwul. ku fi dee si nawetaan yi nga dee. mais nawetaan amul nee nañ amul violence te nawetaan yëpp violence làmb. làmb dafa wax dungu si nekk xam nañu làmb laa wax dungu. nañ gën a jàppale mbër yi te génnee waxu violence ci làmb ji. Mhm, mhm. jour nawetaan yi bu ñuy fubal nawetaan. Mhm. ñëpp teglee seen i carré da ngay joom bi te ñëpp ci kaw la ñuy yëg. te loolu amul ci làmb dañ ko tere làmb. làmb daal ñun ñu si nekk xam ne daaw yàq duñ ko ñu jàppale. waaw nañu sponsor yi ñëwaat ne sponsor yi ñëw te xam ne làmb amul violence. ñu fi tëddee ak a bari. ndax man man fu ma dëkk ak état bi nee na la kay benn tali rek kese moo dox ñu suñu waa kaw. dëgg la maa leen di nuyu waale sax di nuyu waa. Hmm. école Nord fi yëpp. dëgg tamit waa famille Guèye maa leen di hmm. nuyu baax a baax ñoom isaa ñoom ñoom hmm. Baba. dëgg ñoom Ndiaga ñoom seen yëpp maa leen di baax a baax di nuyu waa tamit kay waa Raaw. maa leen di nuyu baax baax ñoom uh, ñoom Bamba. ba ba ba ma uh, kii Bamba Diagne maa leen di nuyu baax di nuyu ñoom yaay. Uh, ñoom Roqe yaag ñoom Awa ñoom seen yëpp baax a baax. ndax man. damay gis suñu waa koñ. Mhm. ñu bëree bëri kay lamb bu amee ñii dañuy jaay caaf. Mhm. ñii di jaay ndox. Mhm. ñii ñii di jaay leneen kon lamb danaka yow mbëri sax ñu ci gën a neew neewle. maanaam maanaam loolu. lamb bu amee ñëpp boo duggee saar am na jaaykatu beñe. jaaykatu zi baa ngi foofu. jaaykat képp. boo gis rek ak jaay bokkul ak moromam te ñëppay jaral. lamb rek am loolu. lamb amul violence nañ génne violence bi si lamb te ñëw ñu jàppale lamb bu baax a baax lamb ñu ay xale ñoo si nekk. te xale bu nekk si làmb da mhm. nga cee bëgg dimbali say waajur ak képp ku yaakaar si yow mhm. nañ ñëw jàppale mbëri mhm. mbëri ay nit lañ duñ ay dof comme sawaay li mu wax léegi mbëri ay nit lañ duñ ay dof nañ bàyyi loolu nañ sponsor yi ñëwaat jàppale làmb ji làmb jamaat ci kanam mais tamit CNG tamit mbër yaa ngi jooy de nee na kay ñoom ñu ngi daggee seen xaalis bi xam xaw naa métti de waaye <laughs> laa dagg wala non non man moom côté boobu moo xaw ma si dara parce que man moom mosuma bëri 3 minutes ñoom itam. ah guy gi yow ya yaay kan. maay guy gi bu ndaw bu teewaan ko. ba yow doo bëri yow comment mais mos laa dagg ci ay air ak ñoom. non non mosuñu maa dagg loolu. ah kon kon yow kii ama. waaw ku la tagi moom wax dëgg yàlla na burul man sax na trop sax yéen yow sax di nga na ndax ñun c'est la famille. ak lu làmb. waa dëkk làmb maa ngi nuyuwaat bu baax xam nga. Mm-hmm, mm-hmm. làmb dafa metti quoi ndax xam nga mm-hmm. entraînement ba nga dugg si wiir géew. ba pare ko sax at bi ñu àll dafa lu gaaw dafa lu gaaw. nga bëree pare dem CNG. xam nga ay 6 000 lay jox. Oh. ay 12 000 yow doo comprendre sax. xam nga loolu noonu. xam nga loolu moo tax mbër yu bëri sax ba dugg si gaale wala ba ñuy agressé. te loolu noonu bàyyi mun naa ñax ndeysaan te peut période bii nii ñu fi agresse yu bëri. Mhm. ay mbër la xaaj bi yëpp ay mbër lañ. Mhm. ndax xam nga. yoo soo doole mhm. amoo combat benn. boo bëree gaa yi dagal dagg yu métti yi xam nga. dafa métti pare amu xëy amoo gond kon nag. waaw président xam nga ñoo lay ñaanal. nga yokk affaire yi affaire yi gën a nooy. waa CNG ñëpp nag léegi la moom. léegi moom nee naa leen moom xam naa moom mbër bu fi entraîné wul moom. yaa ngi koy ci ci problème boobu. waaw loolu méttiwul. ñun moom wax yàlla ay ndaw lañ. Mm-hmm. pare mm-hmm. xam moo li gën a bon si àdduna. Mm-hmm. bëgg naa combat bëgg naa combat. par doo bëgg naa combat bëgg naa combat sa xol baaxul. kon supporters yi kenn mu leen a nax. waaw mais nag boo bëggee làmb da ngay entraîner chaque jour da nga war a a nekk. xam nga muy nuyuwaat nag sama cumbukaay gaa yëpp xam nga ñu si sonn façon àll wu ne la ñuy dem. Mhm. di ma andil xam nga. Mhm. te joxuma leen xaar joxuma leen dara. ku si mel ni mhm. xaadim. ku si mel ni seex ku si mel gi góor gi xam nga maa bu baax wax yàlla sama combat bi sonn trop. un mois mu ngi si àll bi. ndeysaan te joxuma ko cent franc mu bàyyi këram. bagage yi bàyyi këram. yóot yi rek. xaw ma sax ba lu mu fa bàyyi këram. dépense xaw ma ko si. ndeysaan ma ko jox xaalis mu ne ma déet fu ne dem na si àll bi. xam nga ma koy nuyuwaat bu baax ndax moom mu ngi ci taxaw bu baax si wàllu bagaas hmm. yi xam nga borom rag muy gaaw sant waa borom muy gaaw borom agent <laughs> mbër mhm. ba léegi rek waa CNG mhm. est-ce que tamit jotul ne ñuy jël comme genre affiche mhm. écrit bu nekk lu jox la ko nee kat lii ak lii boo ko defee lii boo ko defee yow dañ lay dàgg waaw loolu am na sax Mm-hmm. loolu ménagères yi lañ koy wax ménagères yi wax mm-hmm. course yi. Mm-hmm. te réunion dañ koy amal foofu noonu si biir CNG bi. gars dañuy waxtaanee lépp. lépp dañ koy wax mbëri. mais dañ leen di ñaanaat rek. yenn règlement yi dafa xaw a mer si mbëri tuuti. xanaa ma trop. surtout kay man nag ci mbër mbëru ndaw yi la gën a yërëm. bu dee am nañ droit di ñaan quoi dañuy ñaan rek xam nga ñoom ñooy suñu kilifa si làmb ji. comme règlement bu bees bi amatoo droit ñëw. indi say butéel préparation beeg comme bi amoon. Mhm. léegi da ngay futteeku sa cumbukaay def li ngay def rek ñëw bëri. mais nag loolu tamit. Mhm. loolu ànd naa ci moom. waaw da ngay doon gis. Mhm. benn mbër am ci biir. laa wax loo xam ne temps bi nga xam ne. daanaka moom wax dëgg. loolu daa ëpp. loolu quoi. loolu ëpp na mais tamit loolu si sarmu làmb la bokk. loolu dafa neex am ñoo xam ne loolu moo leen indi saat. waaw am ñoo xam ne digg géej rek moo leen indi saat. bu loolu jeexee rek dañuy jóg ñibbi am ñoo xam ne tuus moo leen di indi. am ñoo xam ne bëri moo leen di indi ku ci nekk ak li lay jëlee sa kër yóbbu la esaat Wow, di leen ñaanaat ak yenn ñu affaire yi ñu gën koo wàññil mbëri daal parce que yéen yi yéen bi dafa diis mhm. waaw di duma am ñu ma fàtte te waruma leen fàtte mhm. caporal ku ci mel ni caporal waaw caporal waaw maa ngi koy sant bu baax moom moom jàmbaar la day sonn si mbëru tiyaan pëli man maa ngi koy nuyuwaale kay bu baax a baax day sonn si mbëru tiyaan pëli ñu ngi koy sant bu baax nit ku baax di nuyuwaat tamit ay nekk ci télé bi yëpp maa leen di nuyu baax ñoom mhm. rona ak ñoom jumo digi momo ñoom alu bilaay ay ñoom euh, asu job ñoom Eva ñëpp maa maa leen bu baax a baax. mais tamit ñoom ñëpp dañ leen di sant di leen gërëm parce que. Mm-hmm. dëkk bi lañ fi nekkal. Mm-hmm. di gërëmaale Ablaye Camara moom mooy sotti samay gaa laaj. ndeysaan Sèye Ibrahima mooy toogal ci mukaay maa ngi ko sant bu a baax. Mm-hmm. Pape Demba magam day sonn si ñun. ay sase ndox. ndeysaan ak képp ku mel ni moom ci biir Tivaouane Peulh. waaw Tivaouane Peulh yëpp daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm. mais ama am na ku ma message de di ma laaj sa ménagère. ku sa ménagère. Hmm? Père Birame la quoi. Père Birame waaw. kon léegi déggee ko fu ko nee na kay moom Père Birame Père Birame à parcelle. ok waaw boobu xam naa man su su ma gënee après dinaa continuer. Hmm. continuer foofu waaw comme loolu rek. di gërëmaat waa Tivaouane Peulh di leen wax ñu gën ñoo jàppale. Hmm. ñun mbër Tivaouane Peulh daal ku ñu jàppale daal lañ soxla. Hmm. ku ñu jàppale bu dee ñu ñu ñuy dégg duñu seetaan. nañ ñëw may ñu loxo jàppale. ay champion kese fi nekk. billaahi. boo ñëwoon école di Tivaouane Peulh di nga xam ne ay champion ñoo fi nekk ay mbër yu bëri ci dëkk fa ama ama ma bokkoo ci mbër yi nga xam ne tamit ñoom dañuy taamu ndax loolu tamit bëgg nañ loo xam ne da yàq lamb de ay man dama bëreeg waa Pikine dama bëreeg waa ñii dama bëreeg ndax yaa ngi nii maa ngi dëgg yow nga ne ay ñaamu ndaw tax naa ñaamu ndaw combat la yéen ñaar waaw ñaaw ndaw moom sama waay la wax dëgg yàlla yàgg nañ daxu ko waaw ñaaw ndaw la mhm. man Bale laa fi bàyyi. mais keneen ku ñëw ma damay bëre ak yow. ñaamu ñaw. waa Pikine làmb boole wuñu. waa Pikine wala Ikri Falaay rek Pikine moom ah, mais nag waa Passe moo xam lan <coughs> waa Pikine moom. waaw mais. <laughs> ah yii <laughs> waaw sa esprit nga wax rek ah, man moom. Mhm. waa kër Falaay Bale laa fi bàyyi si làmb. Ikri ba wala. waaw équipe laa fa bàyyi mais keneen ku ñu mun jox si mhm. naa pour bëre ak yow. ba ci waa parcelle sax wala. pare naa moom yi nekk ah. Mhm. waaw du nuyuwaat gars am nga fa ay adversaire même Pikine ki am nga fa ay. waaw mooy loolu. làmb moom ma booleel ma bëre. Mhm. waaw képp ku may booleel ma bëre. baax na mais nag man bëgg naa booy bu saf sàpp booy bu saf sàpp. wala yow nga dem jama gën nekk ku nga dem jama gën rek moom man moom. laalaaki waaw hmm? mais man ñun xamoon làmb lu tax mu xaw a métti parce que mbërëb ndaw. Hmm? Hmm? boo dem laaj la cent mille. xanaa loolu ñaar mara ngay dem. mujj ne foofu ji sarax yi rek presque sarax yi rek. ñaari maaraay yu mun laam ko bu ñu la génnee sarax rek peut-être cent mille dee na mais kon promoteur nag waaw jàppaleen mbër yu ndaw yi mhm. ndax xam nga bëgg bëre bëgg bëre xam nga ngeen fay ay cent mille cent mille jox leen lu mat cinq bloc dafa metti trop trop trop dama koy wax fii nii ah ambër dafa metti quoi kon na daal dañ koy def dix waaw. Mhm. waaw waaw li ñu gën a jàppale daal 5 pour cent 5 pour cent xam nga. a tane waaw 50 50 man moom man moom wax dëgg yàlla bu nekkee bolok. Mhm. dama jox si bolok naa ko jaay. Mm-hmm. mais nag ma yenn fay kay wax dëgg yàlla que bu ko nee def ma bàyyi làmb fii laa koy waxee. Mm-hmm. ndax man xaalis yu weex taal ma laa def si làmb barke Serigne Saliou Mbacke sa combat su ma calculé ba li ma def si làmb yëpp da nga yegg un wala un cent barke Serigne Saliou. ndeysaan un wala un cent lu ma maaraa wax dama koy def entraînement lu mu laaj dama koy def mais nag damay lekk comme dof. Mm-hmm. waaw xam lool loolu noonu xam nga. gaa yi xam nga gaa yi ñëw bëgg la fay benn cinquante mille ñu la bëre bëre. ndax man taxaw. pesa xam na da ngay nekk su gox bëgg bëre gaay ñu ala jël combat jël combat mais bu jël combat ñëpp dañuy taxaw jël setan mhm. kon nak gaay nak ba dañ jappale mbeuri ndaw yu baax baax baax man mom bëgg na bëre trop trop mais wax digal mom yenn fay mom boko ne fay wax deug yalla mhm. ah man xalatuma pour bëre mhm. ndax xam xamalu gëna bon bay sono say famille mënu am dara sono say say xarit mënu am dara waaw ah, la de mom mais ndaysan may ni wal may ni walé tamit kay euh, Fatou Ndiaye ma lay nuyu bu baax di nuyu Aliou Dione DG Kang gu ñaan Karo ma lay nuyu bu baax di nuyu Modou Tinteranga ma lay nuyu baax di nuyu tamit kay Mbaye GCM ma lay nuyu baax nuyu ñoom Badji VSN entreprise kolan ke bâtiment ma lay nuyu bu baax nuyu kay président kay Modou borom mouvement Teranga ma lay nuyu baax baax mi waaw ba léegi rek. fa laay ñëwaat maa ba koy suñu nga xam ne yow da ngay taamu ay dama bëreeg diw dama bëreeg diw dama kii sama xarit la kii sama xarit la yow ñun bàyyi ñu kenn ñun mhm. làmb comme ñu boole dañuy bëreeg yow ñun lañu bàyyi mhm. dañoo bokk igir duñu bëreeg ñoom ndeysaan kuñ nekk dañuy bëreeg yow mhm. ñun làmb déggoo li ma la xanaa sàng làmb taan ko lañ ko bëgg indi non làmb moom passé la yema ah. waaw guddi guddi parcelle mbër indi na ko seet li ma lay li ma lay wax nii. waaw guddi ñoom ñii li ma wax ñoom ñii. li xam nañ ko bu baax a baax. ah ñoom de moom ñu ngi reetaan. billaay wallaay làmb te ànd lañ ko bëgg indi. te gënoon naa metti nii ah. saa yi tànne na sax. tànne na waaw waaw gënoon naa metti nii ñuy nekk di jóg di daanu ba egsi fii nii tey. booy ko bëri am ndam booy dañu am jom. waaw loolu dama bëri am ndam boo yaa ngi am ndam ñu ngi bëre ñu ngi entraîné. Mm-hmm. jàppale lañ manqué mooy li ma la sànq. nañu mm-hmm. jàppale mburu Tivaouane Peulh ay ndaanaan lañ. Mm-hmm. tubaabu joor mii ku ko jàppale mu dem. kii xam nga ne njool nii li gars yi naan njool ba nu dund baa jafe. moo nekk nii. mooy tubaabu joor. tubaabu joor waaw. moom mbër la moom. champion la eh, moo fi bëri grand combat. kii footballeur moom moo la <laughs> moo fi gum grand combat biir Tivaouane fii nii bëri na spécial am ndam bëri grand combat am ndam macha allah du waa autorité Tivaouane Peulh yi nañ ñëw jàppale waat ay champion ñoo toog fii ñoom segg de décalance ñu am jom lañ confiance moo bëri musul bëri deux minutes confiance booy bisaaw mu mhm. ngi ak ñeneen ñi nga xamante ne mën leen tudd parce que day xat mhm. waaw du autorité bu baax a baax a baax ah salaamaaleykum ginnaaw kay continuer Wow, di bëggewaat di nuyuwaat di santaat sama waa kër mhm. dañuy sonn si man su ma amee combat mhm. sama waa koñ bi foofu ñoom temps suufi mhm. sama tante asu sama yaay ndey saw sama papa dama leen di sant bu baax a baax a baax ñun fayuñu ñun fayuñu suñu nit rek lañu am li ñu ñuy fay dara billaay li ñuy fay mënul sax génne suñu sarax problème yaa ngay démarrer de. ñun ñun li ñuy fay. leer na moom xam naa wax léegi rek. yow boo bëggee kay jël moom ci li lay fay mu ay ñaari cadre cadre moo xam ne fii moom kay bari. billaay di di waxal mbër fiyaan bi ñu gën a jàppale mbër lépp loo joxe rek. <laughs> wala yi bàyyi nga lu bari ñu ne jàppale. dëgg lamb lamb dafa métti lamb mbër mbër kenn mënu ñoom seen mm. seen ajo faaj. seen aajo lépp nooy na. mais mbëri ndey ñun ba lu ñu tombé dafa metti si mhm. àdduna. wallaahi mais nag sant yàlla ba képp ku ñu gis ba duñu mhm. yéene sarax. Mhm. waaw kon nag gars yi ba dañ si fexe jàpp bu baax promoteur yi. da leen waaw xam nga. président Macky Sall yokk na lépp yéen nag fexe leen yokk bàyyi kase bi. bàyyi cent mille cent mille <laughs> ah. non dañuy def loolu. ñoom ay ay deux cent mille métti na trop. ñoom ak mbëri ay xarit lañ dañuy def loolu. dañuy def loolu te xam nga kaar yi kaar yi waaw xam nga làmb ñu làmb la ñu am xam nga mais làmb. ambiance la ndax lamb nekul ay ñew tok ni français affaire dox la xam nga kus melni ba jëru seeraat ma ko ñaanal ndam yalla ko yalla may ndam mm-hmm. waaw goro ñang yalla ko yalla may ndam bu sedd guy mm-hmm. xam nga poids samanet yalla ko yalla may ndam ndax ñom ñu ci lamb ni ñom tafa mbeur yeb ndey daal ñom tafa mbeur yeb nak yalla yalla may ndam ban ay combat quoi mm-hmm. khadim je borom taranga yi yow mom <laughs> yow mom ma sha Allah ndeysan sama way sama xarit waaw fofu rek fa la bëgg bëgg ñëwaat mais ama kan nga soxla. no man boy bu saf sàpp la soxla. kan nga soxla kay mon kay. boy bu saf sàpp la soxla boy bu saf. kanti kanti. mais Gris Bordeaux amul ma ñu bëre. Gris Bordeaux man. Gris Bordeaux. da nga boy ndey kay ko ci laaj ko ci laaj mu ñu champion kay dama ñu Gris Bordeaux. am na ama. ah. Gris Bordeaux kay amna ama. non amna ama waaw mais xam nga bu jógee fofu nag ma jël. ah sa ko bal nga fa de. waaw ndax mbëri ndaw yi fii koo fi laaj mu ne la booy maa raw. Mhm. te deful dara. Mhm. xam nga mhm. deful dara. waaw kon nag man képp ku ñëw pour ñu bëre. incha allah man yi naa ba sama pot yëpp man bëre kese laa soxla. mais man moo wax dëgg yàlla moom boobu sax sàpp laa bëgg ñu ne tey mu dee. ah waaw dugal jama gën rek. mbër yaa nga fa de. <laughs> waaw man moom bëgg naa làmb wax dëgg yàlla sax bëgg naa bëri wala. wala pikin. waaw jamono kii kon maa lay woo <laughs> xam waaw maa ngi nii taxaw waa parce que ñu ngi xaar. te te mhm. barki Serigne Saliou Mbacke man sa combat naa yóbbu huit car bu neuf car bu dix car. yow mi waaw. àdduna ñoo wax xam àdduna. ndax ndax xamaa nit boo dëkkee si gox. xam nga man sama kilim bee neex. <laughs> boo dëkkee si gox boo dëkkee si gox. may naa ko ñëpp. Mm-hmm. boo dëkkee baay si gox. Mm-hmm. dangay fexe yéene ñëpp jàmm képp koo gis nga nga jox ko lu mu moom du ko nuyu. Mm-hmm. ndax boo ndax man pisaar damay génn war a dem làmb. jooy rek laay bëgg moo tax xama boo dee boo dexee biir géew. dama an tey guddi guddi ndam. lu mu mun demee ndam ndax la lu may lu may gis si kaw la. ndeysaan supporters yi. supporters yi may gis si kaw la. man damaa ñii man ba lu mu leen defaral Mm-hmm. te dafa ma dara lu loolu sekk ñoom jàmm. Mm-hmm. salaamaaleykum jeex na. Mm-hmm. ku war a sekk jàmm sekk yow jàmm xam nga suba teer ni waaw di leen bëgg waat bu baax nag. xam nga may jégaluwaat nag jégaluwaat nag. di jégaluwaat si yéen bu baax ndax xam nga ñun moom xamuñu dara. waaw ay xale lañ. xamuñu dara xam ñoo ngi déglu conseil yu baax conseil ñoo ko déglu baax. ama waaw ama guy man Matar Ndiaye moo ma yor. waaw maa koy. sant moom it bu baax a baax a baax. di sant samay combat. Mata Ndiaye. Mhm. ku baax la tuuti gis naa kay. waaw nu muy sonee kay ci gars yi. waaw bu baax wax dëgg yàlla suñu xarit la suñu ménagère. Mhm. waaw ñu ngi koy sant bu baax a baax. Mhm. ndeysaan noonu laay nuyoo tamit eh, sama gars yi nga xam ne booba léegi rek ñu ngi message maître Adama Dione maa lay nuyu bu baax di nuyu Cheikh Ibrahima Dione kay foore ba maa lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit Bada Diouf borom Samel maa lay nuyu bu baax di nuyu waa Samel yëpp Marème. sama rakk ji yow maa lay nuyu bu baax nuyu waa Saamel yëpp maa lay bu baax nuyu koy waa Ngunjaan waa Mburwaay waa Xurwaak ñoom seen koy ma kenn ba ci waa Cangaay ma ci kenn mais mbër. Mhm. il faut bëgg a yóbbu làmb. <laughs> làmb Tivaouane Peulh laa bëgg a yóbbu fu sori. man lu may wax waa Tivaouane Peulh laa mhm. la. bëgg indil roi des arènes mu dëkk fii biir Tivaouane Peulh non loolu mënul nekk. mbër mbër loolu day am. loolu bàyyi parce que bu dee bu dee li koy may. yow. non sa yoon rek maanaam maanaam maanaam parcelle. <laughs> yow yaay posé question yi mais dama lay jégalu posé mhm. moo koy may mbër. entraînement. Mhm. question nag uh-huh. ak fula ak fayda boo duggee mhm. biir géew. loolu noonu loolu noonu nga wax noonu boole ko. Mm-hmm. ñun waa Tivaouane Peulh moom la ñu yor. Eh, yéen waa Tivaouane eh, eh, <laughs> sama laaj bi waaye. billaahi mm-hmm. wallaahi taala li ma la wax doo ko gëm. Mm-hmm. ñun làmb lañ bëgg te làmb lañ gëm. te bu soobee yàlla. bépp mbër bu ñuy jàpp bëre ak moom dinañ la daan. parce que man am naa man am naa combat le 19 novembre incha allah maa Siteu bu 205. mais xooluma ko billaahi wallaahi. déedéet. maa ngi waajal daal. dem jàpp ko daan ko dem xool leneen man ñi si kaw laa soxla xooluma Siteu bu deux cent cinq sax. motul booy boobu weex na de. Mm, non non ko xooluma ko sax. foo bëgg yóbbu làmb ji. foo bëgg yóbbu làmb waaw sori trop wax yàlla. est-ce bëgguma ko indil biir Tivaouane Peulh kii biir. suñu grand Modou Lo moom fu mu. fu mu tegoon bëtam bu muy toll fii. yéen moom wax dëgg yàlla man. yéen passé moom yéen xel dal na moom. waaw ñun moom ak xel dal na wax dëgg yàlla mais ñun moom ngi suñu yoon xam nga. nekk entraînement xam nga. sori sori sori ndax grand yi. ci kon ba dañu mhm. grand frère mhm. ndax nañu mhm. sama xarit. bu ma prêt à porter lay ziar bu baax. moo sensal bu may ñëw solol ma. ndeysaan ma xaalis bëri mënoo ma bu kay ñu sa nga ñu séddoo dégg nga ah <laughs> waaw lépp mën naa neree. continué waaw. taabu suñu baaw ko doom day Garga <laughs> waaw bu dee Garga nag fexe jox ma ko. Mhm. waaw ndax ma sa mbokk pël laa. Mhm. waaw mooy nuyuwaat nag waa talu bu baax. Mhm. gis mel ni maam Ngunda Fall borom kaw sara xam moom man lu tax bëri ma ba nuyu sax man dama koy gën a damay gën a sant waa ku tedd ki muy Serigne Touba. ndax man ba ma bëree pare maam laa dem mu ñaal ma mun a ma ndaw waroo yàkkamte mm-hmm. mais boobu léegi bëri mais wax dëgg maa ngi sant yàlla bu baax ndax lépp lu ma bëgg faj mm-hmm. maa ngay faj période bii man nam duma làmb de mm-hmm. barke Serigne Saliou man <laughs> yow lama na mais yow namoo ko daal namatuma na ma lépp <laughs> may na ma lépp laa waaw continuer waaw ndax man boo bëree pare maa dem foofu doon mun a ma bul yàkkamti dara ndeysaan te wax dëgg yàlla bu ma génnee foofu noonu ay bunta feeñ barki mhm. serigne saliou mbake ñew mo mhm. milliardaire -hmm. lu mu bëgg faj ma faj sama yaay nak xama mu ngi taxaw ba ci man bu baax mhm. dama may xaaliss mo na ma del denc ndaw del denc barki serigne saliou mbake koku mom sama yeen su mom normal bu mo togon fi diko wax sax du fi joge ndaysan barki serigne saliou mbacke sama papa xama diko ñaanal ba sun borom baye ko fi mu fekke sama njëriñ khalifa geey xam di ko ñaanal bu baax a baax a baax. suñu borom yokk ay fanam ndax jàppal naa zone parcelle ñëpp uta leen liggéey xam nga ku mel ni ñoom Mandiaye borom laaru yi xam nga di nuyuwaat waa gàlle bi yëpp yëpp yëpp yëpp maire Mbaw xam nga maa lay ziar bu baax xam nga yow moom suñu yaay bu baax nga képp ku ñëw yaa koy toppatoo xam nga xamoo ko fi dëkk xamoo ko fi dëkkul maire Mbaw émission baa ngi waaj a jeex xam naa que li ci des ka bareetul mais tamit maa maa ngi nuyuwaat tamit kay boobu rafet naa couture kay maa lay nuyu bu baax di nuyu kay ñoom Kumba eh, Kumba kay maa lay nuyu bu baax di nuyu ay ñoom ñoom Kumbis ñoom Salimu Ndaw ñoom uh, Ndey Soose nuyu naa la bu baax a baax di nuyu kay ñoom Agnès Diouf ñooñu ñëpp maa lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu kay waa koñ ba yëpp Marème Jabel kay maa lay nuyu bu baax nuyu ma kay sama ñaay yaay yooyu kay maa lay nuyu bu baax Awa Diop yow tamit yow maa lay nuyu bu baax mais mbër. Mhm. lamb métti na. trop. yow am nga waaw comme ñu mën a limaloon sànq rek suñu waa staff sama fan sa bi ma bàyyi fee ñuy réunion. Mhm. ñoom ñooy dugg seen nit ñu baax. Mhm. man moom xam nga man saa yi moom entraînement rek lañ ma wax. Mhm. ak yenn affaires yi. ñoom ñooy dugg si ñuy xam ñu leen di jàppale. di ma indil. di def si man sama staff. ni mën a limal sànq dañuy sonn si man ñoom ñooy def si man. di waar autorité yi pour ñu jàppale ñu. làmb metti na trop ku nekkul mbër rek mënoo xam ne ndax làmb metti na wala meten, mbër rek mën a xam lool mbër bu amee combat fu nekk ngay dugg. ba si suur làmb gi sax dina am say xarit yoo xamante ni ak say nit yoo xamante dinañ dugg pour ñu wut leneen loo xamante ni ñuy boole ko ci. Mm-hmm. dafa métti trop trop trop. ku mm-hmm. nekkul mbër rek mënoo xam métti waaye làmb. ndeysaan. Mm-hmm. la dénk gars yi. waaw combat bi kay. waaw di leen di leen woo ci combat bi rek instant yi damay woote. di leen woo ci combat bi bu baax a baax. Tivaouane Peulh gépp maa leen di woo. kaa ci sëñ Mame Sor si. aw ma seen fay maa ngi leen di woo ñoom ñëpp. Apix maa ngi leen di woo. quartier Morone maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ci combat bi. Mhm. waa garage bi. Mhm. chauffeur chauffeur minicar yeeg. Mhm. kalandoo yi ñëpp maa ngi leen di woo. bàyyi ma kenn. dama leen di woo bu baax a baax pour ñu ñëw jàppale ma sama combat bi. combat bi. si biir combat comme ni ko gars yi di waxee. nice. <laughs> ama lamb métti na mbaa mbaa yow tamit mbaa am nga yow ñu lay jàppale ndax waaw ku si mel ni ku si mel ni wax dëgg yàlla ah man moom man moom macha allah. waaw macha allah. waaw kon ba pare xam nga ma yoroo wax dëgg yàlla. ñëw bu waree nga boole man boo tegee muy dox boo togul muy dox may ñala muy dox muy dox waaw lépp muy dox lépp sant Serigne Touba ku tedd ndeysaan ndeysaan ndax lépp moo ko defar ndeysaan ku si mel ni Moussa borom kër Moussa xam nga moom mu ngi si taxaw bu baax borom fruit yi yow loo jaayul si fruit yi baaxul ndax su ma amee combat xeetu fruit bu nee la may jox sama mbër daf daa bëgg a coob de waaw moom moo wëree ay ay waxu digg la fi ay waxu waajuram bu jigéen ah. xam nga pël moom seen yaay yi xam nga waa mu baax day waa du baax na ñoom ñu ngi taxaw bu baax ndeysaan xam nga sama waa gàlle mhm. xam nga sama mag am faal xam nga mhm. di ko nuyu waa baax moom moom di taxaw baax mhm. mbay Babacar séeri ay saa waaw borom Italie waaw mais teraange gën naa ñëw man moom téléphone rek laa bëgg téléphone <laughs> ndax kii xam lii métti na trop may saa yi war naa di sinap may entraînement di sinap borom passer borom Pikine xam nga di la nuyuwaat bu baax sa wàccuwaay. ndax maa ko taxawaay <laughs> nekk fii yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw kontaan naa si bu baax. Mm-hmm. Kalso moom mos mu koy fii laay jooy. waaw dinaa ñëwaat ci moom. waaw Kalso moom <laughs> saa yi moom ndeysaan. barki Serigne Saliou Mbacke ba yàlla ko yàlla may ndam. bu nekkee ndam rek ndam rek ma la kaso bëgg barki Serigne Saalum ak dina am mhm. ndam. bu jaroon sax tey kay tey jii laa ma teel sama bëgg naa ko tey rek pour kaso am ndam. ndax moom moo tax mu ñëw fii xam nga. borom borom Gambia borom Sénégal. moom moom dëkk bi moom Baye mën nañoo koy seetaan. moom moom dëkk bi <laughs> Kalson Ndiaye <laughs> mooy mbaru ñëpp ndeysaan maa maa ngi ko nuyu walaay moom kay nit ko baax la di nuyuwaale tamit euh, sama xarit sama doom day tublees moom tamit wax dëgg am na combat. ndeysaan moom moom day bëre yaakaar naa kay 19 rek incha allah rabi ka nu nuyu tamit euh, gars yi yëpp mbër. Mm-hmm. looy tàggu. waaw li may tàggatoo mooy di la gërëm yow bu baax a baax. Mm-hmm. parce li nga def ni yombul. Mm-hmm. di xool jeune talent yi nekk si dëkk yi. nga leen di invité di waxtaan ak ñoom. parce que ëllëg ñun ñi ñooy nekk Balla Gaye ñooy nekk Modou Lo. di la sant bu baax a baax. di gërëm suma waa kër. sama waa kër dañuy sonn islam. Khadija waaw hmm. Khadija sama rak. waaw su may bëri day xam ci kaw esaat. ah hmm. su may bëri day xam. dafa dafa lakkale booy boobu. <laughs> billaahi di leen gërëm bu baax a baax aw ma seen fay. di leen wax. Hmm. maa ngi ñëw le 19. gaa yi toog andil leen ndam li. incha allah ñu feete ko. ñii moom samay mag la. samay mag kese fi ne. ndeysaan ñii maag ñoom ñooy waajandoo sama combat ba combat bi jeex. yàlla seen jàmm yaa ñoom sama gaale la ñuy fanaan. di matinaalu ak man. di nekk ak man ba jour làmb ja aw ma seen fay ñi maa ngi ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay di santat waa équipe bi bu baax a baax a baax mm-hmm. seeg ndegaar maa ngi koy sant bu baax mm-hmm. coach su grand vie maa ngi koy sant aw ma fayam mm-hmm. champion yi fa nekk ñoom confiance bisaaw aw ma seen fay maa ngi leen di sant bu baax a baax képp ku déggul turam rek nga xam ne émission bi moo demee noonu bëgg naa ñëpp daal sant naa ñëpp jërëjëf mbër waaw man maa ngi nuyuwaat waa ñëpp waa maa ngi nuyuwaat ñëpp waa Sénégal mënu entier sûrement nag waa Gambie waa 1 mm-hmm. ba 26. di ñëw seen wàccuwaay. Mm-hmm. ndeysaan awa borom Kër Massar. sama mm-hmm. séeri bopp bi yow nekkal si jàmm. ndax moom tout le temps mu ngi may ma conseillé. ndeysaan xam nga xool ma lu may jëmal kanam. di may sandaat nag suñu kër bu baax. su may bëri dañuy sonn. barke Serigne Sall ku si mel ni Jérém moom moom semaine bu la am desee semaine lay commencé feebar. ndeysaan. il faut ma. bëgg ma métti. il faut ma jógee làmb moom muy doog a tane. ndeysaan barke Serigne Sall yi. moom kay mooy gënoon sonn si samay combat Mhm. sama ñoom ay saa ñoom mun mhm. naa sama bàjjale ñëpp mhm. ñoom day fay xama ñoom tàqoo gis nañ taxawaay bu baax a baax baax Laurent sama njaago bi yow borom Guinée Bissau yow maa lay nuyuwaat baax Clémence sama njaago bi Jean nuyuwaat ñëpp ah mère Marie mu limee damay juub di nuyuwaat waa Sénégal yëpp waa mun ànde mu lay nuyuwaat bu baax baax ndax xama lii dafa rafet ndax lii dafa neex xama gis ay booy ñu nekk si yoon nga invité len loolu wax deug yalla man yalla am amuñu sa fay. daguma la télé bi mag ba. daguma la sax raw ñom Modou may ñu ñep ndax man. dama koy wax. dagaluma fu ma jëm kay tout temps ah. mm-hmm. ndax ñu ñi nga xamne ñoy nekk ci télé wala ci média yi. Mm-hmm. buñ jël suñu temps def ko ci mbër yu màgg yi. Mm-hmm. ndax il faut que ñu wane waa ay champion ndax. yaa ngi ni da nga góob mu ñaar. yàlla yéex. ak kii nii. waaw il faut que ñu jéem a may tamit Cambérène ndaw yi sens mhm. waaw comme comme comme loolu nga wax rek lu rafet la comme li ngay def nii waxoon naa la ko sànq mhm. dafa raar mhm. di waxaal yeneen ñi yor média yëpp di invité mbër yu ndaw yi ay champion lañ ci biir champion nañ leen jàppale champion yu ndaw yi ku ci mel ni sa waay ñu ngi koy dégg bu baax a baax a baax di ko ñaanal moom combat moom borom baax la moom borom baax la bilaay ndeysaan borom baax la sama mbokk la man pël la baax la la moom man maay pël bu ñuul waaw maa yàlla may ndam ndeysaan continue ama yàlla may ndam guy yow da ngaa baax fi nga nekk wax sa baaxuwaay mm-hmm. dara mm-hmm. ndax lii dafa neex mm-hmm. xama ndax nit moom boo nekkee mbër bu ndaw ba si médias yi nii war nañ di leen éviter xama pour génne mbër yu ndaw yi mais tout le temps Sénégal ñoom bu ñoom ku ñu mën a àndal rek. ku féete kaw. <laughs> ndax PSA dafa war wàcc xool ñooñu du seen jafe-jafe. nga taxaw leen. kon nag télé bi yàlla màgg ba nga raw. télé yëpp amiin amiin waay mais Ndakaaru suñu émission man ak yow xam naa seen bi ñëw lay doon. Mhm. Ndakaaru maa lay nuyuwaat bu baax ndax bu mhm. ñëw. Mhm. xam am na wàllu mu dugal si xaalis. <laughs> yow jàmm ak jàmm ak <laughs> jërë ngeen jëf noonu laa leen di nuyu tamit xam naa ne fii laa jaare jaaree kay ka tagatoo ngeen mais tamit maa ngi maa ngi nuyu kay uh, kii Ndiasse Diop kooku ka professeur anglais la kay parcelle ka maa ngi koy bu baax a baax nuyu tamit Lamtooro Lamtooro kay maa lay nuyu bu baax sama xarit sama jigéen maa lay nuyu baax di nuyu Mami Saliou Mami Saliou maa lay nuyu bu baax a baax yow sa yow sama xarit sama jigéen tamit maa lay nuyu bu baax a baax musu koro nuyu naa la yow tamit yow maa lay nuyu bu baax nuyu tamit waa koñ ba yëpp maa lay nuyu bu baax a baax Lamine yow sama teer bu mag bi Ibou Thiam nee naa ko Ibou Thiam Thiam Babel Demba Thiam nee naa ko kooku ma xaw ma xaw ma ci mim réew kan moo ko dàq ñaaw man kay comme dàq ñaaw kay moom man moom laa xam. non <laughs> sama teer moo ko dàq ñaaw non Ibou Thiam. Ibou Thiam moo dàq ñaaw. non sama teer moo dàq ñaaw. Sénégal baala kañ. Ibou Thiam. moom moo dàq ñaaw de Thiam ko dafa dàq de a ñaaw de. Ah. Ibou Thiam ak ñoom DG e ak naa rafet naa couture. non dafa ñaaw dinaa leen boole yéen ñaar. non non da ngay dem dànk da ngay dem dànk ak ñoom seen yu ak ñoom si. mais man moom sama tuwee moom ba naam fond quoi. voilà. ñun moom bëri ñun bëri. mais apix bi apix boobu duggee da ngay ñëw lu ko gaaw de. ay tey lu ma ngay ku ci père As. ñu sant bu baax. allah baax tamit mais ku woy. kay maa ngi ko nuyu baax baax a nuyu kay fast food ma nuyu baax nuyu sa xarit Delmo maa la maa bu baax yow tamit di nuyu waa Pikine yëpp eh, koy fu ma jóg xam naa foofu laa jaare kay takkatoog yéen ba beneen yoon incha allah rabi ak ak yeneen champion jërë ngeen jëf. jaajëf.